nous n'avons jamais vu le parti PASTEF xawma ex-PASTEF def communiquer cité ñooñu nommément ñi saga serigne ñi yor site yoy ne bokkuñu si ñu. tout à fait cité wuñ nommément mais Ousmane génn na. waaw dama ne ñii saaga bokkuñ ci man. Wa dama wax ni ñii saaga bokkuñu ci man. Mhm. té ngay dégg ni amna ko xamni ma nga faré ci yow. Mhm. di la bu dee nii danga nga fokk fonk Touba fonk Tivaouane nga dénk ko tudd Tunkara dénk ko tudd euh, dof bi nekk Morgan beneen déggaat beneen dof bu ne Akhenaton da leen di citer nommément. Mhm. lan moo waral loolu yow ñi nga xam ne ñoom ñooy kënu yi ñi ñu gën fonk ci Sénégal ñi ñu gën a fonk ci àdduna ñit ñi toog taxaw yàq leen lu mel ni xeme di leen tudd. Mhm. di leen citer ba pare di rambo sa drapeau su dee ni ni mbir mi dérangé wu la da leen di citer nommément. Mhm. ne leen diw diw diw diw ton yow kii Keysi ñeneen ak keneen ak yéen ñi wax nii dama wax ni ni génnee leen ma ci li ngeen nekk parce que duma cautionner li ngeen di def mais mosuñu ko def. ndax li ngay wax ma ne su ko dàq yit ndax euh, Pape ale ba mu génnee kaso defe naa ci euh, yi ñu ko tegoon te boobu ñun ñëpp doon ñaan mu génn ci ndax. dañoo jàpp ne taskatu xibaar euh, yërmande gi war a gàll ci moom ci liggéeyam rek euh, loolu moom c'est pas du corporatisme waaye lu ñu yaakaar ne lu yaatoo yaatu la waaye gis nañ dafa génnoon rek def direct ak euh, Mola Morgan daanaka booy xool fa la njëkk a waxee xëy na lan laa leen tontu. Mhm. boobu dama ne Pape Alé dafa ñëw wan journaliste amoo leen fulla amoo leen fayda. dama leen di gololoo. parce que yéen yéen a génn créer cap créer ay journée presse. créer ay dix heures de presse ñu bàyyi ma ma dem wax ak activiste nee woon naa leen wan na leen ni man activiste laa du ma man bàyyi naa bu yàgg sama business laa yor ci presse bi activiste laa damay militer ba mu génnee ñoo ñu la njëkk a accordel direct pour wan leen ni faale wu leen sax yéen. d'accord loolu foofu bi ma waxee dama ne bien fait pour les journalistes parce que Pape wan na leen boppam parce que fa mu fare la nekk parce que sitam la yor ku mu faralul parce que sitam permanence su parti politique la. sitam la yor nekkatul journaliste tout journaliste bu jàpp Pape naan ko journaliste yow gëmoo ni journaliste nga wala soit da bokk ci écurie Pape Alé mais ni Pape di def journaliste bu complexé wala bu ñemewul wala bu amul fit mais Pape Alé Niang nekkatul ci journalisme euh, Moustapha Diop nekkatul ci journalisme ñooñu ñëpp nekkatuñu si ñoo ñu dañu affiché ay Abdoulaye Mbow yëpp nekkatuñu ci journalisme keroog gis naa benn moxtaar ci meetingu Bougane Gueye Dany bi mhm. mais ñooñu nekkatuñu journaliste il refuse d'afficher léegi nak journaliste yi seen bopp ñoo leen war a génnee ci loolu mais Pape Alé ba mu defee loolu dafa journaliste ni man comme amu full fulla amu leen fayda man damay dem sama business damay dem allier samay politique damay dem xeex sama xeex damay def samay bêtise ma pare yéen ngeen génn xeexal ma mu génn gain leen ni intéressé wu leen ma man ci activiste yi laa bokk ak ci insulteur public yi donc foofu moom ba mu génnee lii laa leen wax d'accord tontuwaat leen ko léegi nag pour revenir ci li ma la wax ma wax la ne la yow da nga ma est-ce que ñu di saaga ak nangam nangam ma ne la mosuñu ko ma ñëw leen li tax ma jël exemple bi mooy sama Badara Gadiaga dafa nekk chroniqueur du peuple. Mhm. nekk un combattant constant cohérent Sénégal yëpp xam ko ñi koy saaga ndax seen leader bi Badara Gadiaga di xeex seen leader mu nga biroom toog. Mhm. bi Badara Gadiaga di yor oto di voyager ci alalu boppam di jàppale sénégalais seen leader boobu pareegul pour jàppale Sénégal. Mhm. kon nañu régler. d'accord léegi nag bu dee rek. ngeen am bu dee ni ni cortège ay vaar rek ngeen am seen leader mooy champion bi. d'accord donc bu dee slow rek la génnee leen yéen seen yosu leader Badara Gadiaga nag di ngeen ko teg ni tege.